Clay moo leen di may seen émission li xew ci biir internet bonjour nuyu nañ leen jaajëfal bu baax ci heure bu baax bi ñëw nañu ñun waa heure bu baax bi team bi nga xamante ni saa su ne bu journal bi jeexee rek ñun ñu tàmbali moo tax di ci la ñuy profité jaajëfal bu baax rédaction bu télévision Futur Média jaajëfal Cheikh Diop mi leen doon dégtal euh, xibaar yi ci kàllaamay coach Cheikh Diop mi nga xamante ni euh, du ñu jóg ci di ko jaajëfal Cheikh moo fi ne moom Cheikh yi moom lañ ko duppee Cheikh Koulibaly Cheikh du Koulibaly mi nga xamante ni d'ailleurs ci ñu waxaale ci équipe nationale bu Sénégal bi nga xamante ni toujours euh, fi mu ne ni moo jiitee toujours ci classement FIFA bi gën a yéegaat sax ci classement mondial ndax ñu ngi ci vingtième place bi loolu am na solo luy euh, intéressé sportif yi la mais surtout ñuy suivre équipe nationale bu Sénégal jaajëfal leen respect euh, yéen ñëpp gis nañu message yi ci ci réseaux sociaux yi que ça soit mu nekk Facebook Twitter wala Instagram bi nga xamante ni aussi surtout suñu live bi nga xam ne actuellement ñu ngi ci live euh, YouTube bu télévision Futur Média dara du leen rëcc ci li xew ci biir internet bi rawatina programme yu télévision Futur Média en temps réel ci la ñuy profité jaajëfal bu baax équipe digitale bi nga xam ni moo tax dara du leen rëcc en live waaw léegi nag fi jamono toll télé ci poche la voilà ci suñu smartphone yi. Euh, ak iPhone 13 yeeg fi mu ne nii fi jamono toll <laughs> tey d'ailleurs dinañ ci wax sax ci kanam dañuy njëkkee ak euh, jaajëfal waat leen encore une fois ak euh, yéen internautes yi respect rek waaw nii am na benn internaute moom mu ko envoyé ne ma lii la ñuy wax Pierre Da réalisateur connecter respect. Pierre Da Silva internautes yi la jox video bi ne leen respect mais ñu nit ci la ñuy profité jox leen yéen euh, respect bu baax encore une fois comme ni ñu koy defee chaque jour ci ni ngeen ne baaxoo émission bi li xew ci internet bi mais surtout ni ngeen koy plébiscité gis nañ live yi ci réseaux sociaux yi Facebook live bi day explosé commentaires yi ndax surtout question yi ñu fiy posé euh, ñëpp ci bàyyi xel ñu ci bari dañu félicité waaye ñoo ko bokk félicitation yooyu euh, TFM mooy waat du Sénégal donc lépp luy gën a fës ci euh, internet beeg réseaux sociaux yeeg ci Sénégal dañ koy partager en temps réel am na ku ñu envoyé benn image bi wan ñu image bi ne ñu ngeen joxe ci seen xalaat waaw lii nag Pierre dama bëgg nga njëkk ci commentaire yow ñu ne cette photo a l'air romantique jusqu'à ce qu'elle demande qui est Binta donc Pierre njëkkal joxe sa sa commentaire en attendant internet yi joxe ñoom seen euh, commentaire ci Facebook live bi YouTube live jaajëfal bu baax euh, Adja bu euh, service digital bi tax ngeen di am live yi en temps réel mais damay xool live bi nii ba xam gars yi ni ñu tàmbalee nan la ñu commencé ci seen commentaire yi gis nañu message yëpp nag kii nag benn internet moo tax tey moom la fas yéene ubbee joxe leen seen ay commentaire ci kanam dinañ ñëw lire lépp dara du leen rëcc ci li xew ci biir internet bi mi ngi noonu. am na solo gis naa benn challenge yi tamit lii moom dañ ciy profité rek jaajëfal bu baax suñu mbokk lébu yi ndaxte challenge bi jar na challenge quoi surtout lébu yi wane leen seen bopp def leen hashtag bi suñu net Facebook Twitter lundi incha allah ñu ñëw ci gën ko yaatal kii ko lancé nag la ñuy njëkkee mais lii euh, vraiment c'est exceptionnel acca nga ni ku di ngaan nag may ngaan nga ni kuy gan nag may ngaan saala yaayu benn doom ngan mi yettu guy muy gaal yettub salaam muy jiw laaj ay dem naa ba néeg yoof ee eh di laaj te ngan sam jàll naa ba néegi ngor geej di ngan sam na leen guy gan may ngaan na leen nga ni guy xanaa teeru ngan mi yettu guy muy gaal TikTok fii TikTok loolu la moo tax challenge bi day mën na wër àddina fi mu ne nii def leen yéen tamit seen challenge ngeen lancé ñu ko ak hashtag bi sunu net Facebook Twitter wala Instagram live YouTube bu télévision Futur Media wala live euh, Facebook lépp dinañ ko gis def leen seen ay challenge diggante mbaaw euh, Wakaam Yoff Ngor yëpp fépp foo xamante ni léboo nga fa def leen ba Saint-Louis bu leen bàyyi code bi yëpp mbuur bu leen bàyyi lépp yëpp wane leen seen bopp ngeen def ci hashtag bi def ci code. comme ni ñu koy waxee expression boobu ci réseaux sociaux yi ñun dinañ ko partagé lii tamit suñu fierté lay doon ndaxte déjà gis nañ ni mi ngi def tollé ci li muy def xale bi xew ci jamono mën nañ ko wax noonu phénomène la moom Samba Peuzzi gis nañ ni son yi euh, ñu ngi koy ci réseaux sociaux yi surtout euh, clipam bu bees bi nga xamante ni mi ngi ko tuddee lu yàqu yow en tout cas mi ngi def buzz gis nga nii déjà RFI moo def euh, benn portrait ci moom ci mi nga xamante ni mën nañu ko jàpp phénomène rap fii ci Sénégal ñu def leen extrait bi ay millions de vues déjà la ñu gis ci yeneen clipam yi bii tamit mu ngi ci yoon bi acca ñi actuellement yeneen même médias étrangers yi ñu ngi def euh, lu am solo ci moom lii tamit en cinq jour clip bu Wally Seck bii nga xamante ni euh, def na buzz ci réseaux sociaux yeeg internet bi déjà mi ngi explosé YouTube déjà un million de vues moom euh, clip bi nga xamante ni fi mu ne nii yàggul dara fi mu ko tourné diggante ndakaaroo ak Guinée en tout cas gis nañ ni sénégalais yi bëgg nañ ko gis nga ni nag actuellement seetlu nañ ni musique sénégalaise mi ngi wane boppam bu baax surtout ci côté digital bi ndax déjà clip yi du def moins d'une semaine ñu yegg ay 1 million de vues ci qualité bi ci continue bi mais surtout euh, musique sénégalaise wala artistes yi ñu ngi wane seen bopp bu baax ci la ñuy profité daa def clin d'œil euh, ñi nga xamante ne ñooy artistes yi mais surtout seen ay fans ñu nit ci lii tamit ci li xew ci biir internet bi la acca voilà yéegal na tendance yi bokk na ci tendance yi jiitu ci actuellement ci YouTube en euh, moins de d'une semaine un million de vues muy def euh, muy battre ay record comme yeneen artistes yi ni ñu koy defee saa su ne fi mu ne nii baax na ci ndaxte vraiment musique sénégalaise ñi ngi gën a wane bopp seen bopp ci toile bi yi jabaay aussi. bokk na ci euh, son yi nga xamante ne fi mu ne nii mooy moom tamit un mois rek ñu ngi naan déjà mi ngi 3 euh, millions wala 4 millions de vues sur YouTube yi tamit bokk na ci suñu fierté lay doon ci suñu musique bi artistes yi culture sénégalaise yi wane boobu seen bopp bu baax baax a baax ci toile bi rawatina ci côté digital bi gaa yi ngi ciy liggéey te mi ngi nii résultat yaa ngi nii gis nga bu ñu génnee clip bu amee qualité son bi neex gaa yi seetaan ko fi jamono toll moo tax yaa seetu bi wane sama leeraay jant guddi ba teewu suba teel bi ma la ci la tàgga weetaay ne tooñal sa tey nii la ubbee bi nga xam ne mi ngi explosé ak suñu artistes yi taxawal seen bopp gën a euh, dëggal seen bopp en tout cas ci côté digital ci def lu am solo seen million de vues yi nga xamante ne vraiment suñu fierté la fierté Sénégal la mais nii la na gën a yokk gën jëm ci kanam comme artistes nigériens yi nga xamante ni gis nañ ni saa yu ñuy dugalee ñoom tamit seen ay vidéo donte ñoo ñu ëpp ñoom seen population fa bari macha allah saa yu ñuy dugalee mooy d'une semaine yegg ay 10 millions pourquoi pas accessible mais surtout nekk loo xamante ni neex a dugg neex def ay recherche information yu wér te wóor ma nga foofu ci site d'information bu groupe Futurs Médias waaye actuellement nii live bi nga xam ñëpp a ngi koy bàyyi xel ci mbirum euh, Simon ak euh, kii di kilifa bu Y'en a marre waa Y'en a marre ñoom ñooy def conférence de presse ñu ngi seen live Facebook actuellement site d'information yu bari ñu ngi ci di ci ak ñi ko teewee ñi politiciens yi gis nga Ousmane Sonko ma nga ca euh, conférence de naa ni Barthélémy Dias aussi ma nga Sagna ma nga ca conférence de presse ba actuellement en live ñu bare nga koy bàyyi xel surtout la fay euh, tukkee ci ay xibaar di ngeen ko am ci euh, rédaction bu télévision Futur Média mais site d'information bu groupe Futur Média aussi ay xibaar yu wér ca wóor la loolu am na solo. ci noonu sax lañuy jaare ci xibaar yu wér te wóor yooyu daal di jàll ci fi mu ne nii li xew ci li ñuy waajal mooy safar gi safar gi nga xamante ni fi mu ne ñëpp yëpp moom la ñuy waaj waaw ñun lii ñu ñoo leen ko baaxoo di def fi mu ne nii fii ba safar gi ñu yegg ci 18 safar gi chaque jour ñu euh, wan leen njàngaleeg ma borom Touba ak équipe digitale bu télévision Futur Média extrait yoo xam ne da leen di jariñ saa yu génnee suba si ñëpp partagé ko ci réseaux sociaux yi rawatina WhatsApp. jaajëfal encore une fois équipe digitale ki ko jiite di mag yi ci lii am na solo ci li ñu innové waaye image bi tamit mu ngi def buzz màggalu tubaa ab euh, archive la yu ñu génnee ci euh, ay ci tubaab yi ñu doon def benn documentaire muy Genevois la tudd documentaire boobu ci euh, atum 1948 la màggalu Touba image yi ngeen di gis yu sourcé ko mi ngi noonu ñu fàttali wala gën ñu gën a ndaw atum 1948 màggalu Touba la woon image yii la joxe. mi ngi noonu ay ay image archive pour ndaw yi yi tamit bokk na ci émission bi ndaxte internet fi ne dañuy génnewaat yi nga xamante ne ñoo fi jotoon jaar ngir ndaw ñi gën ci jàng rawatina màggalu Touba nga xam ne toujours euh, mbegte lay doon ci murit yi mbegte lay doon ci Sénégal événement bu rëy la àddina wërngal këpp di ko wàcc loolu am na solo ci noonu la ñuy jàllee Tiwaawan yi tamit ndaxte seen euh, lii di euh, grande mosquée bu ti bu Tiwaawan bi nga xamante ni actuellement nii euh, mi ngi jógee ci initiative bu am solo boo xamante ni taalibe yëpp wala Sénégal gi yëpp ci participer ñëpp a ci dugal seen loxo ngir jumaa ji yegg ci jàmm mais ci dimanche bi xalif général bi demoon na def ko ab visite. gis ngeen ko ci réseau sociaux yi ñu ngi koy jàllale mu nekk loo xamante ne yàlla ñu yàlla may ñu yeggale ko ci jàmm. en tout cas lu lu lu am solo la ci loo xamante ni ci ay œuvre la mais surtout euh, architecte bi lim ci génnee wala lim ci wax ne noonu la fas yéene mel gis nañ ko ci réseau sociaux yi nekk na lu am solo te ñu koy xaar avec impatience ndaxte euh, lu autonome la ci wàllu ndox ak courant mais surtout yeneen euh, jumtukaay yu mucc ayib yoo xam ne dina méngoog jamono. Euh, lu am solo la gis nañ ko ci réseaux sociaux yi ñëpp di ko partagé que ça soit mu nekk Twitter Facebook Instagram ba ci TikTok fierté Sénégal la ndaxte taalibe yi wala sénégalais yëpp ci dugal seen loxo ngir yi yegg euh, lii nag lu am solo la yal yàlla may ñu yegg yeggale ko ci jàmm. hashtag bi tamit bu leen ko fàttee euh, sunu net la mu nekk Facebook Twitter wala Instagram ñun xam nga ni dañuy def émission li xew ci internet bi tamit di leen may ay kado ndaxte question yu bari yu ñu fi posé eh, boo leen joxee ay réponse dañ koy dañuy choisir ci ay internautes yi en live nii may gisee internet seen live yi ci la ñuy profité jaajëfal bu wax suñu sponsor yi jili CSB ma nga nekk rond point cité kër góor gi mi ngir adresse bi moom lépp loo soxla comme matériel électroménager ma nga fa Samsung yees yi nga xamante ni famille Z bi jili am na ko déjà précommande bi commencé na foofu nga ko mën a amee ca rond-point cité Keur Gorgui di fàttali ni boutique bu authentique la moom mooy d'ailleurs la seule boutique euh, authentique fii bu Samsung fii ci Afrique de l'Ouest mu nekk loo xamante ni euh, lu yees la en tout cas suñu fierté lay doon moom jili di ndaw boo xamante ni jàmbaar la lool ci li mu nekk nii CSB numéro téléphone am moo nekk donc 33 822 47 00 wala 3w point csb Berkeley lycée bii nga xamante ni tamit lycée bi méngoog jamono sixième ba terminal foofu pour ndaw ñi nga xamante ni fi jamono toll mbirum formation en robotique wala drone yeeg application web mën nga ko ñu former fi ndaw mi wala xale bi fii ci lycée bii nga ñu duppee lycée Berkeley mi nga xamante ni numéro téléphone mi ngi noonu ñu bare ñuy message naan ni nan la ñu mën a def ba seen doom euh, mën a am accès wala mën a bokk ci lycée bi sixième ba terminal la numéro téléphone baa ngi noonu euh, am na solo daal en tout cas lycée bii daal lycée de qualité la di leen jaajëfal fas yéene ñu ànd ak ñoom mois bi yëpp ñu ngir gën a fësal seen lii ñuy def ci lu am solo mais surtout fi jamono tollu ñu ciy former ndaw yi loolu yi tamit lu ama am solo la jaajëf ñu ñëw ci image kase effectivement euh, Baye Ndiaga Diop mi nga xamante ni vraiment euh, fierté la pour Sénégal génn àddina 5 août 2020 moom mi nga xam conférencier bu mag la ci xamee ko lool ci mbirum Baye Fall taxawaayu yoonu Cheikh Ibra Fall euh, mu nekk koo xamante ni kenn dootu ko présenté démb moom lañu defoon image cachée euh, mu ngi noonu ñi ko trouvé bari nañu man yaakaaroon naa ne gars yi du ñu sax dem jéem a donte ñu faussé aussi bari nañu ah ñu bari dañu yaakaaroon ni Abdoulaye Wade la. fekk non Baye Ndiaga Diop la ngi rappelé waat rek ndawam yi gis nga boo ko tàppee turam ci internet bi euh, émission bu mag bi mu defoon fii ci quartier général fii ci télévision Futurs Médias mooy gën a fees bari na lool ay millions de yi nga xam ne ba tey ndaw ñaa ngi ci jàng ba tey taalibe yaa ngi ciy jëlee ay xam-xam ñu bàyyi leen a vidéo bi nga xam mi ngi ko doon joxe joxe conseil ci ndaw ñi. noonu bu xam nga ndaw lu def noonu di di di nga mucc de ngeen jël leen seen naqar def ko muy seen bànneex bu ngeen xëyee xëyee wéttalikoo leen yàlla bu leen wéttalikoo mbindee dem ci wala mu dem wala mu dem ci bàmmeel yi na na yàlla yokk leeram moom Baye njaga Diop mi nga xam ni euh, démb moom lañ defoon image kase ana kan mooy image kase bi tey wan ñu image bi. kan moo nekk ci ginnaaw image bi hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram. commentaire yi ñu ngi koy xaar xool leen image bu baax mën ngeen def capture miin ngeen sax ni ngeen koy defee ndaxte fu ñu tourné ci internet bi gis nañ hashtag sunu net gis nañu muy Twitter muy Facebook muy Instagram ba ci YouTube live bi ñu ngi gis ni ngeen ni commentaire ñëpp bëgg ci cadeau yi nga xamante ni fii lañ koy maye ak suñu sponsor yi yu bëree nekk ci biir nag ubbi naa ko fi ba tàyyi yëpp pour yéen la waaw téléphone portable yi. aussi ci la bokk nga tey kii lañ choisir sax d'ailleurs ci question yi nga xam ne posé nañ ko fi démb dafa dafa jafe woon moo tax ñu choisir internet bi euh, gisuma tur bi bu baax Pierre wax ma tur bi wan ma wax ma tur bi fii waaw ndooy waaw moom la euh, moom la ñu choisir mu dem ci jili CSB mën na dem ci jili CSB jëli loowum foofu jaru muy ñëw fii moom euh, ñii ñëw fii moom man maay gérer fii situation bi fii man maay gérer fii pour ñii war a ñëw fii mais moom euh, internet bi ñi nga xam ne moom lañ choisir mën na dem ci jili CSB jëli lowam euh, fële ca jili CSB ma nga nekk rond point cité kër góor gi mu ngi tuddu xaaral ma xool tur bi Sada Ndoye voilà Sada Ndoye moom lañ choisir parce que dafa trouver Serigne Ndiaga Diop considéré comme un professeur doté d'une une approche pédagogique loue à ses valeurs c'est bien jeu baa ngi noonu wan ñu bi lii ba tey nag dafa mel ni dafa compliqué pour gars yi xool leen bu baax hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram robinet bi ci ban ndox mi war a njëkk a xelle wala fa lay jaar fa la war a mën a jaar A la wala B C D ainsi de suite commentaire leen ngeen euh, bàyyi fi seen ay message équipe baa ngi ci ginnaaw di taataan lépp loo xamante ni ay commentaire yu ñu euh, ñu gis ni mooy réponse bu baax bi ak hashtag bi sunu net Facebook Twitter wala Instagram wan leen question internet bi ma la envoyé léegi Pierre Da Silva réalisateur kañ depuis quand la ñu voilà mi ngi noonu à quel âge avez-vous commencé à utiliser les réseaux sociaux question bu am solo la. question bu am solo boo leen fàttali ko commentaire leen ci question bi benn internaute moo ñu ko envoyé léegi nii à quel âge avez-vous commencé à utiliser les réseaux sociaux c'est important question bii ndaxte dafa am benn hashtag bu génn euh, bu xew temps yi nii ca France mooy anti 2010 yi. hashtag bu doy waar la mi ngi nii fi mu ne nii créé na tollé foofu ca France anti 2010 ñi naan dañuy beddi ñi nga xamante ni dañu juddu 2010 ku nekk nag tooñ yaa ngi jóge fu ne yëf yi ci ay tooñ la commencé mais actuellement mi ngi def buzz foofu ca euh, France ñenn ñi nee nañ ñu juddu 2010 nan la ñuy def ci réseaux sociaux yi ndaxte amaguñu sax 13 euh, ans ñenn ñi nee nañ ah, waruñu beddi ñenn ñi nga xamante ni aussi ay xale lañu mais au contraire dañ leen war a mën a gën a mën a jàngal hashtag bu doy waar la fi mu ne nii ma ngay def buzz foofu ca France média yëpp di ci wax euh, moo tax question internet bi laajte euh, ban at wala ban age ngeen amoon ba ngeen utiliser commencé dugg ci réseaux sociaux yi nekk na lu am solo et puis dafay coller sax ak actuellement li xew ci France euh, mi nga xamante ni actuellement buzz la foofu loolooy wane ni internet amul frontière li xew France ak États-Unis nekk fu ne hashtag bi day wër àddina foo ko tàppee anti 2010 yaa ngi koy gis ci réseaux sociaux yi mu créé benn tollé bu doy waar ci noonu ñun. xam ngeen ni saa su ne dañuy eh, gindi di leen wax jox ay xibaar yu wér wóor rawatina di waxtaan ak suñu spécialistes yi tey dañuy waxtaanee ndaxte WhatsApp dafa fas yéene eh, teg ab dogal le 1 novembre yenn téléphones yu fas yéene ñu am WhatsApp wala mënatuñ du du accessible wala du compatible. pour ñu mën a am plateforme bii di WhatsApp loolu nag day doy waar surtout fii ci Sénégal nga xamante ni bokk na ci plateforme boo xam ne ñu bare koy utiliser. loolu nag moo tax ñu waxtaan ak kii di euh, Abdoulaye Ly mi nga xamante ni informaticien la ingénieur en informatique nekk xam-xamam màcc miin ngeen kanamam daanaka euh, rubricar la léegi ci émission bi surtout ci yenn cas yi nga xamante ni toujours da leen a soxal Abdoulaye Ly jox ñu explication ci WhatsApp mi nga xamante ne à partir du 1er novembre dafa ni euh, yenn téléphones yi du mën a mën a télécharger lii di application bi. à partir du 1er novembre WhatsApp dootul fonctionner ci yenn plateforme yi cest ci yenn téléphone yi. c'est tout à fait normal parce que dafa am lu ñuy woowee obsolescence programmée en nouvelle technologie cest à dañuy insister ñi nga xamante ni ñoom ñooy utiliser que ça soit téléphone que ça iPad wala ordinateur ñu débarrasser à un moment donné dem jënd li nga xamante ni mooy lu bees te loolu ñu ngi koy jaarale ci li nga xamante ni mooy système yi ñuy installé ci téléphone portable parce que téléphone portable d'accord mooy machine physique bi mais li tax nga koy mën a jëfandikoo mooy système d'exploitation bu ci nekk que ça soit wala moo tax ngeen gis souvent ñuy wax iOS 15 génn na Android 9.4 génn na et cetera yooyu mooy li nga xamante ni ñoom ñooy indi ay correction ñooy apporter ay mise à jour ci li nga xamante ni moom mooy téléphone portable yi léegi ñiy defar application yi ñoom dañuy basé wu ci mise à jour yu bees yooyu pour indi évolution ñoom aussi ci seen ay application léegi nag dafay laaj ñaari mise à jour yooyu tolloo de telle sorte que application bi pour mu mun a daw correctement ci li nga xamante ni moom mooy téléphone portable il faut téléphone bi nekk à jour mu mun a télécharger dernière version bi nga xamante ni moom mooy tax WhatsApp bi aussi nekk à jour. léegi nag dafay laaj ñaari mise à jour yooyu tolloo de telle sorte que application bi pour mu mun a daw correctement ci li nga xamante ni moom mooy téléphone portable il faut téléphone bi nekk à jour. mu mën a télécharger dernière version WhatsApp bi nga xamante ni moom mooy tax WhatsApp bi aussi nekk. am na solo euh, Abdoulaye Ly di la jaajëfal ci explication yi leer na donc euh, pour yenn téléphones yi la téléphone yu xaw a voilà obsolète quoi yu yu bees yi yees yi ba léegi moom dafay méngoog jamono. xanaa ci euh, iPhone 13 yi bokk ci am na ñu ne di di tooñ ci iPhone 13 yi nee nañ mook 12 bi kiif kiif daana ko ñenn ñi nee nañ comme que mi yenn ci téléphone yi pro bi fas yéene na jar je pense 1 million 300 su ma juumlee. ñeen ñi nee nañ loolu tabax naa def na ay ciment yu bëree baree bëri bon ku nekk ak li ko arrangé li ko gën su la neexee boo leen amee moyens yi ngeen jënd ci iPhone yeeg téléphone yu yees yi mi ngi noonu iPhone 13 ngi créé buzz fi mu ne nii lancé nañ ko ñii nee ko kiif kiif la image yaa ngi noonu defi leen nee nañ dara changé wu ci entre 11 12 13 ñii tooñ iPhone la gis ngeen ko 12 ak 13 kiif kiif mais. pour ñi nga xamante ni voilà qualité cinéma beeg image yi ñi ciy liggéey je pense dina leen arrangé surtout bu pro beeg li euh, nga xamante ni vraiment qualité bi dina gën a euh, qualité image bi quoi dina gën a dina gën a yaatu loolu am na solo. di remercier jaajëfal waa Mauritanie gis naa Fatim Fatima Zahra Diagne depuis Mauritanie nee na du raté émission bi mi ngi koy suivre en temps réel gis naa lébu yaa ngi yëngu ndaxte ñoom it seen hashtag bi seen euh, challenge bi nga xam ne lancé nañ ko fii ak Oustaz Assane déjà moom mi ngi commencé daanu leer ñu ngi joxe naan am naa fi 100000 francs oustaz xam naa ne 100000 francs yi foofu nga toog rek lay yem du ma ko mës a gis <laughs> oustaz Assane Seck di euh, miin ngeen ko suñu oustaz bi nekk fii ci télévision Futurs Médias di ko jaajëfal jaajëfal yéen euh, internet yi mais tamit am na kenn ku posé benn question bu am solo euh, Pierre mooy ki naan savoir si son téléphone si son WhatsApp est piraté ou surveillé. pourtant waxoon nañ ko fi sax mais dañuy répété waat rek la répétition pédagogique baaxoon nañu saa su ne ñu nit tamit ci émission bi di leen gindi euh, lii euh, pour nga xam ba xam ndax sa téléphone euh, sa WhatsApp dañ ko ñu ngi koy surveiller ou pirater yomb na mun nga dem ci paramètre bi wan leen paramètre bi ah mën naa ko expliquer ni vite fait comme que li ñu desee ci waxtu bariwul nga dugg ci paramètre bi di nga gis WhatsApp di la proposer appareil connecté bo ubbee appareil connecté gis nga fa. bu melee nii mooy kenn surveillé wu ko kenn piraté kenn piraté wu ko donc kenn surveillé sa sa sa sa sa WhatsApp. dinaatal am na nu muy mel neneen boo xamante ni boo fa duggee boo duggee appareil connecté dina la proposer voilà lii moom bu ko defee mooy euh, voilà sa côté sa tel sa WhatsApp mi ngi connecté wu ci beneen euh, application wala ci beneen téléphone u beneen euh, machine surtout mag yi am na solo pourtant réalisateur nu ko waxoon mu def ko rouge. pour mun mën a gën a mën a leeral euh, téléspectateurs yi ñu mën a comprendre bu defee nii mooy téléphone bi connecté na WhatsApp bi connecté na ci beneen machine voilà boo duggee appareil connecté bu la wonee bu fekkee amul dara mooy connecté wul dara bu defee nii mooy euh, mi ngi connecté ci beneen machine donc mieux vaut nga déconnecté ko boo ko déconnecté je pense que sécurité toujours duñ ci jóg ci di ko wax amul à 100 pour cent ci téléphone portable yi ñu bàyyi leen ak vidéo bi juste après ñu ñëw daal di tàggatoo xool peut-être ñaar wala ñett euh, internet xool leen ba xam ndax mën nañ leen a woo fii ci euh, télé bi lundi ñu ñëw jël seen ay loo jox leen euh, cadeau. ñenn ñi sinon ñu bàyyi équipe digitale bi fii ba lundi mais en tout cas am na ku ñu choisir pour mu dem ci jili CSB pour jël ay jël loom foofu fotowu partagé ko ñu ni tamit ñu daal di koy partagé comme ni muy demee ci émission bi jaajëfal leen encore une fois yéen euh, téléspectateurs yeeg internautes yi rawatina mag ñeeg euh, kilifa yi nga xam ni saa su ne nee na ñenn ñi am na benn grand bu ne ma bu émission bi commencé damay tëj sama bureau toog ci biir di xool di suivre émission bi ndax yu bari lañ ciy jëlee mais surtout daf ñuy euh, may ñu décompressé wu xaw dañu xaw a stressé surtout liggéey bi heure bi heure pause la quoi man leen ma ne ko c'est bien parce que mais YouTube live mi ngi fi Facebook live bi Instagram live am ngeen possibilité même booy job nga teg pose tuuti di xaar añ bi wala di añ bàyyi wala xel bu baax émission bi am na solo télévision Futurs Médias moo leen koy dégtal bis bu ne la lundi ba jeudi di leen jaajëfal jox leen euh, dig daje ba lundi incha allah ci beneen numéro li xew ci biir internet bilingue Berkeley moo leen doon may seen émission li xew ci biir internet